jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat euh, lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir sit bi rek damay fas yéene saa su nekk ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax. ba tax na ki ma dalalaat tey doonatut ku ñuy présenté te ci biir jaww ji rawatina biir réew mi bitim réew ndax xàmmee nañ ko Wassare xam-xam bi nga xam ne mu ngi koy def saa su nekk mu di saltige Ndoye Djiné eh, dinañ waxtaan ci ponk yu bëree bëree waaye xew-xew jamono di actualité dinañ ci yaatal bu baax a baax tey daal ku déglu di nga dégg révélation yu am solo ci Ndoye Djiné kilifa gi laata may ñëw suma biir programme damay bàyyi nga nuyoo mbokk askan wi bismillah. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahim allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman tamman ala sayidina muhammad alladi tanxalu bilxaqdu wa tanfarij bilkurab wa tuqda bilxawaaju wa tanaal biraqaab wa xusnul xawaatim wa yastasqa alqamam bajil karim wa alihi wa saxbi fi kulli lamxatin wa nafasin ba'da kulli maadun lakka auzu billahi min alshaytaani rajim bismillah wa billah wa min allah wa ila allah wa ala allah fillah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim euh, sëñ Cheikh ñu ngi leen di ziar di <laughs> ziar euh, waa people 221 <laughs> di ziar mbokk internet yi di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm <laughs> di wax wallahu ala ma naqul wakilu tarkalla jërëjëf euh, saltige euh, Ndoye Djiné ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw euh, seen set yooyu tam ak dal kontaan bu baax di la dalal jàmm aca comme ni ma koy def ak say naataango yëpp noonu lañ ko fas yéene doxalee ko waaye lépp rek ñu wér ko ci xam-xam ngir ñi topp mën cee jëriñ njëriñ ñu taw féexe aca dinañ waxtaan ci lu toll ci juróomi ponk waaye dañ koy xaaj ñaari pàcc diggante ñaan ak pàcc bi nga xam ne suñu borom dal la ci dénk xam-xam to nga ci am résultat yu màcc ayib duñ fa jógee xew-xew jamono du doon lenn mu di actualité ni ma koy defee saa su nekk gannaaw euh, procès bi nga xam ne moom la ñu séntu te li ci desati bëreetut mu di le 16 mai di président Ousmane Sonko ak kii di soxna si Adji Sarr aja am na lu mu ci gis nag euh, dina dinañu wax ki ci am ndam waaye ndax euh, procès boobu dina am wala du am it am na lu mu ci gis du ngeen bëggee am résultat yu am solo topp leen ko waaye révélation yu am solo dina fi bire tey am yéeme na de ku déglu di nga dégg acca kilifa gi daam foo xam ni foofu laa namoon tey ñu tàmbalee mu di affaire u néew kattan euh, tonga ciy def résultat yu kenn laam la am néew moom laa bëggaat ñu dellusiwaat. waa euh, Cheikh néew kattan moom euh, damay wax ni néew na sëriñ. waaw ah. bu ma ci mhm. bi micro bi waaw. Ah, néew na sëriñ boo xamante ni yem na mu ci fii. Mhm. parce que boo xoolee moom moo nekk nii garabu néew kattan moo nekk. mu bokk waaw wax kattan. waaw mhm. parce que. néew kàttan mënoo ko faj te xamoo li koy. lu koy lu wër xamoo li koy waral benn mm-hmm. lekk yu bon ñaar. Mm-hmm. Euh, rab yu bon yi jinne yi. beneen bi ci des aussi am na ñoo xam si ne dañu am jabet. Mm-hmm. yooyu yëpp daf koy daf koy faral di waral. am na ñoo xamante tamit dañ leen taq xala. waaye dama koy wax. waaw dama naan euh, billahi alladi la ilaha koo xamante ni. gis nga garab waxuma bu bu bu bu bu ma raw de. waaw bu yem ak man wala bu jege sama garab bi boo ko indee ma neexal. dafa leer. lu ko wóolu bopp moo koy def. wala boo ko ëndee ma ne mm-hmm. ma neexal. waaw waaw waxuma la garabu wolof. wala mm-hmm. bu tubaab ah. mënti doon na doon garabu tubaab wala bu wolof. Ah. te kii maanaam jooni jooni la. Ah. xam nga bokkul ak garab gi nga xamante ni da nga ko daan jël sax. muy doon ay trois jours ak yu demee noonu. Mm-hmm. kii wallahi wal kitaab boo ko jëlee te amoo jabar billahi ladi da nga mere sa bopp. waxati ko beneen bi ci des aussi. waaw ku sa jabar. Euh, nanguwul. Mm. wala munul encaisser bu ko jël. parce que daf ma dal ci benn waay. ndeysaan nee daf ko jël. Euh, ngeen baal ma dama ñëpp baal. da ngay jàngale rek. parce que daf ko jël nee na. Mhm. Euh, dem ñaari yoon ci jabar ji. waaw mu dem ba parce que garab bi boo ko jëlee. Mhm. deuxième bi man ngaa diir lool naa dem ba une a temps wala mu jege ko. léegi mu dem ba jabar ji sonn. Mhm. ni ko mënatuma. Ah, waaw dina delloo xaw tuuti musibaam waa ji na ma xaw na maa dee. Ah, xaw na mujj dem dem di fooyee boppam billaahi lazi. allahu akbar yoruma garabu caaxaan yoruma garabu caaxaan waaw waaw xëy na nag jinax bu benn njëkkee génn beneen bu génn da nga naan beneen ak waaye billahi alladi ko sob ba ni dama koy essayé amoo jabar wala kii da nga daj loo xamante ni la la ruuba ma ma tamoon buur <laughs> daj lu ko raw da nga ko daj solo kooku moom wàllu néew kattan moom ku manti doon ñëwal da ngaa wër ci sëriñ si ba sonn da ngaa wër ci wàllu tubaab ba sonn ñëwal da ngay jël léegi gis léegi kon kooku te it euh, def nañ ci xéewal parce que garab bi li ci daj ak tamit métti gi méttee liggéey yëpp <laughs> prix bi wax dëgg yàlla cherul mu ngoog cherul ñëpp mën nañ cee jot incha allah. mu ngoog aja kon mu ngoog euh, jàpp leen ne pou euh, néew kàttan bu euh, saltige Ndoye Diné li ci dëxañoo ci njariñ bari na nee naa leen nag ku ci amut soxna ku ci amut soxna bu ko jël ndax ah. te xam nga li ci neex mooy. Hmm. maanaam day fajaale hémorroïde. day ki nga xam si day lekk du rees. waaw ak xam si amul appétit. Hmm. boo ko jëlee da ngay am appétit boo ko jëlee trente minutes après da ngay xiif moo tax képp koo xamante ni da nga xiif wala mhm. bul ko jël lekkal ba suur nga doog koo jël mu ngoog bu dul loolu rek xiif dana la sonal kon mu euh, mu ngoog ci ñi nga xam ne euh, lu sax mënoo ko bii dégg lim ci wax lépp doo moytuwul sax di nga bëgg a yóbbu lu tolloog waxtu kon néew kattan bu am solo la mu di garab googu atia euh, ñu dox ba léegi wéel dem ci beneen ponk damay ñëw ci sa saabu ouverture bi nit ñëpp di waxtaane <laughs> boobu de ñàkk ko am moom wóor ñu wàllu saab bi moo nekk nii. Ah, macha allah mën leen ko de. moo nekk nii moom. Euh, wàllu ubbiku moo ko a jug. ak ñi nga xamante ni luñ yaakaar day tas. waaw maanaam euh, da nga nekk chef d' entreprise wala ngay businessman wala yu demee noonu. Mhm. nga xamante ni nit ñi luñ la dig duñ ko def. yu demee noonu. Mhm. waaw wala nga umu. ki moom loo tëju tëju tëju billahi alladi boo ci sangoo di nga di nga di nga loolu moom aw ma ci sikk mhm. xanaa ñàkk jot waaye boo ci jote mo li lay won ni sax gis yàlla xam na ni man sama jëm bopp su ma ci bëggoon am dix yu tegloo su ma ci bëggoon liggéeyandoo dix yu tegloo hmm. damay sonn mun ma cee liggéeyandoo dix yu mat lu baax de waaw lu baax hmm. du du du du du yomb des fois nit na hmm. euh, fi amaan na fi xanaa des na fi lu mat quatre po <laughs> na solo euh, ko jëndee jar la am na solo te bëri na euh, ñu jàll ci beneen ponk damay ñëw ci nopp sa noob bi moom gaa ngi koy waxtaane <laughs> xam naa moom doona nit ku nekk waaye soo ñëwee fii suñ la noobee day jàpp ñu ñëw ci noob day wax dëgg yàlla moom mën naa ni xam nga doomu aadama <laughs> mhm. munoo ko jàpp te xamoo tabaxam doomu aadama munoo ko jàpp te xamoo ci lum nekk waaw lu wér ki nekk ci jàkka ji di julli wala ki nekk yor kursam di di di di wird mhm. yamul ak nit ki nekk di sangu am na ñoom bala nga leen a mën a jàpp ci nopp foog ñuy sangu ah. da dañuy dem ba def ah kii de mënatuma koo jàpp fekk mhm. déedéet day sangu rek xaal bi nga ko fekk. foofu la am na foo xamante ni boo fekkee nit alaa kulli haal da koy jàpp. am na ñoo ci nelaw nga leen di jàppee. am ñoom boo leen bëggee jàpp foog nga toog ci ndox. liggéey leen. ci xam bi li mu ko a jóg. mu ngoog ko tax a jóg. <laughs> nobbee tax mu jóg. moo tax a jóg. boo xoolee li tax bu ma woone beneen côté bi. waaw oh. euh, luñ ci bindoon. ndeysaan wala ko gaay pirate jeex na <laughs> setagul lool. setagul lool. <laughs> Euh, mais kii moom képp koo xamante ni liggéeyal nañ la ci wàllu moo xam jigéen la. ñu <laughs> bëgg noob jëkkëram. wala mu doon euh, nit ku ñuul. ku bëgg alal ci tubaab. macha allah wala moo am ñu muy liggéeyal yu demee na wala nga bëgg a noob sa sa patron. kooku moom bu soobee yàlla. Ah. ñëwal ñu defal ko liggéey bi nag metti na waaye moom jar na ko. waaw noob gu wér dafa yombatu. kon ngoog atia am na solo bu leen ci taayal dara ndax nee naa leen lu baax jar na lu nekk te noob bi yaakaar naa ni ñu koy jëflante da nga koy jaarale ci kànnaar bi. waa dañ koy liggéey ci kànnaar. xam nga ñaar la nag yu bokkul. waaw ñaar la yu bokkul parce que mm-hmm. bu dee kànnaar bi. waaw mën nga ci tëj nit ba am li nga soxla. Mm-hmm. tijji tëjaat moo tax kànnaar bi moo gën a cher. <laughs> moo gën a cher bu nekk. waaw ah. ganaar bi moom mën naa ni dama ko gëjoon liggéey sax. parce ah. que ak koor geeg yooyu xam nga. Mhm. coono biñ ciy dajeeg yooyu daanaka doo ko mën ci koor gi. lu wër waaw ah, moom képp ko bëggati. Mhm. boo ñëwoo rek incha allahu taala commande lay doon. macha allah incha la ko liggéey te xam naa ne doo ko réccu. kon te it bañ na ko ba deret lañ koy bindee. te it xam liggéeyu jinne la. Mhm. mais moom bu soobee yàlla boo di nga di nga xam ne lañ ci dépensé moom daanaka moom da nga ni jar na lu ko ëpp. macha allah kon moo eh, jàpp leen ne kànnaar bi wuute na ak yeneen kànnaar yi ndax eh, am na njëriñ te lam cee liggéey da ciy jaaraleeg eh, jinneem jooju nga xam ne day ànd ak moom ci liggéeyam kon loolu am na solo atia waaye xalaatuma waxtaan ba pare te jaaruma ci li nga xam ne ci bunt bi la ko ñeen ñi di wooye mu di listixaar wala lu ñu ñëw ci seet bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def. Euh, waa listixaar moom euh, muy listixaar muy seet ñaar yëpp koy def. Mm-hmm. dañ koy def parce que ah, ñun mën naa ne dañuy seet seet yu wuute su mhm. daf ci xam si dañ koy def seetu raml dañ koy def ah. benn ñaareel ba si mhm. dañuy def seetu ruuxaan maanaam kurus lañ koy jaarale yu koy fanaanoo mhm. xaadim la bu bind fanaanoo ko nga xam si lépp luñ bëgg a xam ci yow dañ koy xam ah. mën naa ni wala seet boo xam si ne day génnee sax examen du ma ne examen benn réew li tax nag examen duñ ko nangoo génnee parce que suñu réew la patriotisme moo la moo tax ay ay siise bag ak yu demee noonu duñ ko bëgg génne mais billahi alladi la ilaha illa hu islam dafay génne bay génne siise bag tarkal la waaw mais ah, moom ku képp koo xam ne soxla nga ko rek boo ñu mhm. jokkoo insha allahu la wax sa lépp wax la sa avenir wax la li la téye ah, wax la say sarax ak lépp ci kàttanu yàlla boo amee ku lay lor tamit daañ la ah. xam na ni billahi alladi bu la neexee mën nañ la jox ba jox la loo xam si da nga koy jëfandikoo gis say noonu jiharatan macha allah ami ko kon ngoog yi dee leen di seetlu wala ngeen di niirlu wala ngeen di def listixaar ndax doon na loo xam ne lu baax la soo ci dugg la ci mel ni kër ba ci jënd lii di daamar wala dugg soxnaak leneen jar na di niirlu wala jàpp yoon atia fa may jeexale kilifa gi ndax lépp nag euh, ci xam-xam lañ ko weeroon ma ci kontaan bu baax a baax. Mm-hmm. ci leeral yu am solo yooyu noonu. atia dañuy jeexale ci projet bi nga xam ne ni ki le 16 la soreetut euh, diggante. président Ousmane Sonko am na fi. bismillah ak lan. hémorroïde bi am na waaw balaa ma moom mu ngi kii moom yaakaar naa nit ñi. solo xam nañ ko. Mm-hmm. sept la. waaw bu sept jours yi matee boo gisul résultat ñëwul ma delloo la. juróom-ñaari fan rek. yàlla xam na ko. même hémorroïde bi génn. waaw man ki ma gën a sawar mooy ki na ma naan wóor naa fépp. waaw parce que hémorroïde li ci gaa yi xamul mooy. Uh-huh. des fois day rax kii nag bu dee hémorroïde bu rax. ngelaw bu raxul ak yëpp. macha allah boo diwoo sept jours day kooku aw ma ci caaxaan. kooku moom bu sept jours yi matee boo gis résultat ñëwal li man dooy. Mm-hmm. yaa ma ko waxoon ma delloo la sa xaalis. yaakaar naa mosuma ci delloo nit xaalis. waaw waaw lu wér. ndax ñi koy jël ñëpp wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla macha allah atia kon foofu assurance lay doxee mu di euh, po boobu nga gis muy wane muy dox ci mbiram émoride euh, sept jour rek nga gis ci tawféex njariñ lu solo ci coppite ci yow jërëjëf jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu fa ñuy jeexale bokk na ci xew-xewu jamono mu di actualité ni ma ko waxee saa su nekk ci procès bi dox ci diggante président Ousmane Sonko Adji Sarr ni ki le 16 mai euh, gis nga bi passé. Hmm. ba bi yoon du ko def ni comme ni mu defoon bële ne. wala kan nga yaakaar moo ci am ndam. waaw xanaa balaa dara rek di ñaan yàlla mu mu defal ñu jàmm. beneen bi damay wax ni moom ak lu ci mënti xew moom balaa lenn nañuy xool ndamu Sénégal rek. waaw mhm. euh, di wax aussi di ñaan yàlla ñaanal yàlla jeunes yi yëpp di wax ne xëy na duñ xam. mais jamono day toll foo xamante ni euh, mën naa ni jeune bu nekk da nga war a moytu wala nga sàkk sarax. moo tax jeunesse nañuy faral di sàkk sarax. Mhm. tey tey tey tey moytu. moo xam du ci procès bi kese mooy tax may wax. waaye dañuy toll foo xamante ni. Mhm. jinne cheyaatin yi dañuy dugg ci ci ci réew mi. dañuy soxla deretu ndaw. léegi nag xoo jàmm de. procès mën na am. Mhm. ñu jaaree ko ci wala leneen moo tax jeunesse bi nañuy moytu. Mhm. te képp kuy dem ci manifestation wala yu demee noonu tamit ngay génnee sarax boo mënee génnee sarax ndox tamit nga di ko nga di ko def. di ñaan tamit jeunesse bi. Ah. ak lu mënti xew. ak lu mënti xew. li xam suba euh, yàlla moo xam lii xew suba yàlla waaye nañuy moytu. manifestation bu amee wala dara dañu moytu di di di yàq luñ moom parce que Macky Sall mm-hmm. suñu institution yi wala leneen lu ci mënti xew waaw buy dem daf fiy bàyyi donc ñun ñoo ko moom <laughs> lu wér mm-hmm. di ñaan yàlla rek mu defal jàmm Ousmane Sonko mm-hmm. defal ko Macky defal ko Adji parce que suñu sœur aussi di ñaan rek ki xam si mooy Mame Mbaye di ko ñaanal yàlla. baal ma dinañ ci ñëw waaye di ko bëgg naa nga nga nga yiwi ma rek le 16 bi yaakaar nga. gis nga ndax ñaan yàlla rek nañ ci génne saraxu ñoom ñaar nañ génne saraxu ndox rek waa lool nag moom euh, xam nga doo ko mën a dévoiler parce que boo ko waxee rek da ngay dugg ci domaine yàlla. <laughs> te yàlla am na fulla joo xam ne si moom euh, lim gën a bañ mooy koy sóoru. Mm-hmm. boo ko sóoroo rek mu won la sa bopp. Mm-hmm. moo tax da ngay xam li xew mais da ngay sarax nit ñi rek. bàyyi noonu mu seet. atia ci avenir u euh, Mame Mbaye Niang lan ngeen ci mën a baaxee. waa xanaa di ko ñaanal yàlla di di ko ñaanal yàlla. te wallaahi wal kitaab waxuñ koo ngir dara bëgguñ sax mu mu xam waaye na na na jóg ci boppam. parce que mm-hmm. jàpp naa ni fii Sénégal ku fi yeewoo am nga sëriñ na dem ci sëriñam ñu dolliwaat koy ñaan. daam loo gis ci moom. non non du du caagin sax xam nga du lépp lañ mën a wax waaye na dem ci ay sëriñam ñu dolli koy ñaan bu baax. <laughs> loolu rek laa ko mën a. su ko defut su ko defut lu ko ci mën a fekk. non déedéet <laughs> xam nga bu ma àggee foofu rek damay dugg ci domaine yàlla waaye moom na dem wutiwaat ay ñaan rek. parce que hmm. loolu sañ naa ko parce que frère la comme frère sénégalais yëpp. Hmm. ndax li raam moom te nga gis ko ci ñàkk bala jëm. waa na dolli ñaan rek. na hmm. dolli ñaan. Euh, président Ousmane Sonko a ñaanal. macha allah président Ousmane Sonko ndax euh, gis nga fu mu doone président 2024. Hmm? loolu après loolu moom du lu ñuy kii. Hmm. loolu moom du lu ñuy dévoiler parce que tamit sëriñ munoo gëm ni. Hmm. sarax day fanq. gëm ni ñaan day fanq ba pare yu mel nen li nga ciy teel a wax. <laughs> waaye tëj prison bi moom dañuy wax coow lay bëri rek waaye kenn du ko tëj. wala de loolu ba tey loolu duñ ci dugg. Ah. <laughs> duñ ci dugg parce que loolu ñoom seen liggéey ñoom xëy na daañ ko daañ ko daañ ko. waaw mbaa déet daal doo ma ci tontu. <laughs> waaw yàlla xam ne du ma ci dugg. Ah. Cheikh man damaa xam damaa xam yàlla. Ah. ci benn côté xam naa ci as tuut moo tax. <laughs> parce que. nday jinne maanaam dafa jeex na. dafa am dafa am ful xanaa jinne deetuñ la bokk wax ma la ñuy dee benn yoon waaw mais est-ce que est-ce que. est-ce que est que ñi lay dee sax dinañ bëgg ngay siiwal yéen yi ah. parce boo xoolee seex sëriñ si fi dëkkoon yàlla ñëpp de. Ah. boo xoolee day yaakaar naa seen i. biir loo mën a dalal seen xel ci président Ousmane Sonko loo ci mën a. dalal di ko di ko di ko ñaanal yàlla rek di ko ñaanal yàlla. Hmm. di ko ñaanal yàlla di wax ñëpp tamit euh, ñu dalal seen xel hmm. am na réew moom euh, na ma yàlla baal jàmm rek moo fi mën am. ak lu mënti xewit coow bu baree bu kii bu ëllëgee jàmm rek moo fi mujj parce que ñoo bokk lépp. Hmm. ñun jàmm moo ñu jig parce que ñoo bokk lépp. gars yi de ki doon président 2024 da leen a xaw a de man ko kan nga proposé. <laughs> koo gis <laughs> non non kenn kooku yàllaa koy gis <laughs> kooku moom munu ma cee munu ma cee kii parce que sëriñ du liñ lay woon lépp ngay wax. yàlla na ne bu doon sëriñ liñ lay woon lépp da nga koy wax. Hmm. kon du baax. mais sëriñ dafa dafa jafe xam xam nga des fois loolu ñan ñoo koy def boo gisee sëriñ yu koy def day doon sëriñ yoo xamante ni seen xam-xam maanaam judduwaale wuñ ko wala yàggut ak ñoom. Mhm. léegi nag bu ñu leen joxee benn secret rek bu ñu rek dañ ne ah man seet naa ko gis nangam fekk xamoo ni ñaan day fànq. mais est-ce xam-xam rek li ñu gis xam nga sëriñ doo gisee it. am na yoo xam ne mën nga ciy wax. waa man nag d'accord ma ci parce que doo nangu nii sëriñ loo gis fanq mën na ci nekk mënees na génnee sarax mu fànq moo tax sëriñ bul di gaaw di wax xoolal suñ coupe d'Afrique bi ñàkkoon yàlla xam na ni ku doon xool da ngay gis ni lii boo amul boo mënul seet dëgg. Hmm. da ngay gis ni lii ñoo ko moomoon. mooy suñu Coupe d'Afrique bi ñu pertoon 2019 la xawma. <laughs> Ah, bu mu yeewul leneen dootu la yee parce que sarax day fanq ñaan day fanq dara day war a xew nit ki génnee sarax dara. mu hmm. fanq wëlbati jërëjëf moo tax loolu ko ko xam rek ku xam sarax rek. <laughs> di nga moytu di wax euh, di jiitu yàlla ci ab. <laughs> jërëjëf ñu bala nga tàggatoo ci la euh, ngay jeexale. xanaa di ñaanal rek euh, yàlla suñu client di wax ni. Euh, ñi nga xamante ni dañ fi amoon ay garab. <laughs> ñoom ñëpp na seen xel dal xam ni seeni garab pare na. ci des rek moo yónnee leen ko. macha allah waaw euh, beneen bi ci des di wax wàllu kànnaar yi wax naa ko pare. <laughs> waaw xëy na koor gi moom moo ñu tënkoon ak yooyu rek waaye garab yi fi yëpp disponible na. bu mu ci boo ñu woowee ci numéro bi incha allahu taala dinañ la dimbal di wax ni aussi garab yi. <laughs> joxuñ ko keneen mu koy jaay wala yu demee noonu garab yi ñun rek ñoo koy jaayal suñu suñu suñu bopp mën nañ am nag keneen ku ko soxla ci beneen raison boo wootee ci numéro yi daañ la daañ fexe ba nga ba nga ba di wax wasalaatu wasalaam ala rasulallahi jërëjëf